ñëw na téeméeri yoon ak ñaar fukk ci biir alquranul karim pour wan la lislaam fi mu teg jàmm nga xam ne fii ñu nekk fii ci àddina jàmm fi gën waaye fa la nekk di allaaxira fa la ñu jëm di allaaxira jàmm moo fa gën te lépp lu nit nekk te amuloo jàmm bu soobee yàlla audu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidi al awalina wa sayidi al axirina alladi lam yuxlaq misluhu bika lam yabdu mislul mustafa mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw ci eh, suñu émission yowmal jumaa nga xam ne ajuma ji ci nekk danañ dem ci jenn jumaa taataan la fay nekk la fay bàyyi ko jox ko ñi nga xam ne tabarakallahu ñooy eh, askanu adduna yëpp eh, muy loo xamee ni lu am solo la eh, eh, ci direct yi nga xam ne seen télévision Futurs Médias da koy def di ko ànd ak waa àdduna yëpp eh, jumaa ju ci nekk ñu dem fenn taataan la fay bàyyi ko joxati ko rawatina nag fi nga xam ni mooy dëkk bu tedd bi di Tiwaawan ni ñu ko doon defee ci yeneen dëkk yi rek noonu la ñu dellu see ñaari ajuma yëpp gis ngeen ne Futurs média dafa ñëw amaat beneen liggéey bu bees bu mu taxawee mooy fexe ba. Euh, l'islam bi di gën a leer waaye l'islam bi di gëna taxaw ba ajuma ju ci nekk ñu dem ci jumaa taataan jottali ko waaye nag direct yi ñu gën koo yokkaat loolu ñoo ngi ciy sant bu baax kilifa yi euh, ñi nga xam ni ñoo fexe ba lii di am ñaari ajuma yi yëpp ñu ànd ko ak yéen ci jumaa yi xam ngeen nit fu mel ni Tiwaawan def fi lu mel ni dafa am solo ndox juma yi Alaaji Maalik la ñu deman ba passé tey jii ñu ñëw fii ci zawiya sëñ Babacar euh, ki nga xam ni mooy imaam Muniru Ngiraan moom ngeen dégg noonu muy def bayaan bi eh, tabarakallahu bu ñu noppee nag imam Moussa Diop mooy jiite julli gi mooy def xutba bi def bayaan bi loolu la Futurs Médias àndandoo ak yéen ñu eh, di fas yéene kenn ku fi teew rek nga mën a bége loolu nga xam ne mooy émission bii nga xam ne mooy yomal jumaa eh, ànd ceeg yéen ànd ceeg mboolem koo xam ne nag yaa ngi déglu Futurs Médias fu ñu mën ne ci àdduna bi ñu nekke ko ànd koog yéen ngeen jot li ngeen xam ni moom mooy ñor ñoru juma parce que gàmm la ñu ñëw waaye nag dañu ñëw nag àndandoo ak li nga xam ni toujours ñoo nga ca moo di émission juma jottali xutba yi àndandoo gaañi ci li nga xam ne mooy bayaan yi euh, waxtaan yi fi am jullee ndoog ñoom jottali leen li nga xam ne moo fiy bàyyi kon ñoo ngi ànd ak mu Muniru euh, Ngiraan muy def bayaan bi bayaan bi nag ci jàmm rek ak xutba bi nga xam ngeen ne temu gàmm gi ren ci jàmm la jëm te xam ngeen ni jàmm boobu war nañ koy véhiculer nit ñi gën a xam solo si mu amee si mu amal doomu aadama yi li Seex Sidi Haaji malik fexe woon ba Tiwaawan gii li fi nekkoon ay buur nekkoon fi xeex nekkoon fi reyante am fi Sidi Haaji Malick ñëw lal ay mbalaani wasifaam def fi peru salaatul yi ba jàmm jooju sax ñu ñu gën koy véhiculer loolu moo waral tey rem temu gàmm gi ñu def ko ci jàmm moo tax euh, imam bi ci lay xutba oustaz Mohamad Mouridu Ngiraan ci lay xutba ñu ànd kook euh, mbooleem groupe Futurs Médias xam naa duma ma sori damay bàyyi rek ak oustaz ci bayaan boobu incha allah bu ko defee bu ñu noppee dañuy déglu nodd gi nag àndandoom ñoom ci xutba bi déglu xutba bi ndax xutba dafa am solo lool ci julli mooy bu ñu ko xasee tàmbali wax dootul am mennum imaam mooy wax nit ñun ñuy ko déglu ci ndax moo waral bokk na ci li waral ñu dindi ñaari rakk yi nga xam ne mooy ñaari rakk yi ñeenti rakk yi euh, julli la ndax sañoo sax xale nekk ak yow nga ni ko noppil kon nag ñu teewlu ko rek incha allah bu ñu noppee julli ba noppi nag toog ak bi nag waxtaan ak moom comme niñ ko doon defee ci yeneen jumaa yi incha allahu taala euh, ak ànd ko nag ak seen télévision Futurs Médias ci direct bi kon ba ci kanam xanaa duma leen tegtal loo xam ne ida faaltumuhu taxaababtum bu ngeen ko defee rek di ngeen soppante ndax duma leen tegtal loo xam ne yéen jullit yi bu ngeen ko defee di ngeen soppante kenn ku ne danga bëgg sa morom mu mel ni saxaaba yi dañ ko laaj ne ko sang bi loolu lan la mu ni afsu salaama baynakum na ngeen di fexe ba siiwal nuyoo ci seen diggante ci seen biir maanaam bi siiwal nuyoo ci seen biir wa at'imu taama dee leen leel aw ñam maanaam dee leen jël ñam di ko jox seen mbokk mu xiif ngeen di ko def li wajhillahi alkarim te yàlla rek tax waaye wasilu wa sallu bi leyli wan naasu niyaam na ngeen bàyyi ba guddi ba ñépp di nelaw ngeen jóg dëgg seen tànk yee dëgg bu dëgër di naafila loolu daal bu ngeen ko defee dangeen ngeen gëm yàlla te bu ngeen gëmee yàlla bu ngeen faatu di ngeen dem aljanna yonent bi salaa sallam moo ko wax gis nga kon xadis bi fi mu ko tàmbalee mooy lan mooy afsu salaama baynakum na ngeen siiwal jàmm ci seen diggante fexe leen ba siiwal jàmm ci seen diggante jàmm mooy lan mooy nuyoo bi ngeen di siiwal ci seen diggante mooy jàmm nuyoo bi ngeen di siiwal ci seen diggante mooy jàmm te jàmm nekk na loo xam ni ñam woo xam ne ñi ngi koy toggee ci xel yi ci xel lañ koy toggee waaye nag ñi ngi koy yekk ci ndabal jëf cin loolu ñuy wax xel moo koy togg ndab li ñuy wax jëf ci lañ koy yàq kon képp koo xam ne bëgg nga euh, topp ci li nga xam ne moom mooy jàmm bëgg a dund jàmm yéene ñépp jàmm na nga fexe ba yow nga tàmbale ko ci sa bopp ni nga koy tàmbale ci sa bopp mooy nga fexe ba raxas ci sa xol nga fexe ba raxas sa xol ba mu set wicc te wax nañ ni xol mooy ndabu yàlla sunu borom subhanahu wa taala benn ndab la am ci kaw suuf mooy xol xol nag bu tilimee yàlla du ci yàq ndab lu tilim kenn du ci yàq fokk nga raxas ko ba noppi te yàlla benn ndab la am ci kaw suuf mooy xol bu la bëggee yàkkal bu yëree sa xol xol ba tilim du la yàqal fokk dalay xaar ba nga raxas ko ba noppi boo ko raxasee ba noppi nag mu soog laa yàkkal kon mbokk yi nañu dellu raxasaat xol yi yéenantewaat jàmm kenn ku ci nekk yéene sa moroom jàmm ñàkk bokk ak nit gi nga ñàkk a bokk nit benn benn tariqa mënta tax bu mu tax ngeen nekk ci jàmm di nga dëkk ak nit te du ngeen bokk benn tariqa ñàkk bokk gi ngeen ñàkk bokk tariqa bu mu tax ngeen ñàkk nekk ci jàmm ñàkk a gëm gi ngeen ñàkk bokk gëm lenn bu mu tee ngeen nekk ci jàmm waaye yow defe nga ni li nga gëm moom bu ko kenn gëmul rek kooku moom nekkul dara jàppewoo ko jàppewoo ko sax jullit loolu du indi jàmm balaa jàmm am fokk sa mbokk jullit li mu nekk li mu gëm danga ko koy reconnaître maanaam nangul ko moom li mu gëm respecter li mu gëm moom it mu respecter li nga gëm bu ko defee ngeen boole ngeen bokk nekk ci jàmm ndegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lay loo xel ki nga xam ne du jullit dëkkandoo bi nga xam ne du jullit moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di bàyyiloo xel nit ñi kon waxuma la dëkkandoo bi nga xam ni moom ñépp xam na ni sa mbokk jullit la kon tabarakallahu dafa mel ni waxtu wi jeex na ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bu baax a baax a baax ndax sa kilifa moom bu la santee nii la defal ma nangam donte sa xëy na mënoo ca dara waaye nag nga def ko ngir ndigalam def ko it ngir sagale ko ko tabarakallahu ñu ngi jéggulu ci kàddu yi bu baax a baax a baax in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ba bennoo kenn ku ci nekk jox sam moroom cër ak loo mën a jàpp ak tarixa boo mën a bokk parce que loolu itam daf ci am solo mooy nit ñi ñu joxante cër cër gi mooy nga nangu cërub jàmbur loolu da ci am solo lool loolu moo waral mu leeral ko xam naa ni du ñàkk ni am na ay yëgle ak i wax yoo xamee ni moom lañ bëgg indi mu am solo yoo xamee ni tabarakallah waaye lii na ndigalul xalifa bi la jaar nag ci ki nga xam ni mooy Pape Malick Sy Euh, Pape Malick di doomi Cheikh Seydi Hadj Malick euh, di doomi Serigne Babacar si di rakki Serigne Cheikh gis nga kon tey nii yàlla dafay euh, sunu borom xam nga sëriñ Cheikh nii la nii la leen boolee woon moom Serigne Mbaye Mansour Serigne ak ak Serigne Pape noonu la leen boole woon bi muy bi muy dund nga xam ni sëriñ Abdou ngi fi mu daa wax ni nañu na na na na na sëriñ Maodo àndandoo ak euh, kële mu dem ca rawdu sëñ Babacar Ba waaye na euh, ki nga xam ne mooy Pape Malick dem ca euh, sëriñ Mbay mu ne fa loolu gis nga ko ni ko yàlla defee mag ñi moo tax seen mbir dafa yéeme loolu ndax lu ñu boole rek loolaa war a ànd su ko defee xam naa ni bu imam ñëwee rek agsi ñu daal di jëm nag ci li nga xam ni moom la ñuy war a waxtaane incha allahu taala ndax ba bi dafa dafa lëkkaloo ak gàmm gi pee muy jàmm te xam ngeen ne àdduna bi fi mu ne soxla na ko Sénégal nag comme dañ koo amee ñoom dañoo amee jàmm euh, ñoom ñoo ko war a véhiculer jox ko waa àdduna waaw boo gisee daanaka yu mel noonu dafay mat di bayyi xel lool mooy àdduna bi feneen foofi dem dem nañ ba jàmm amul ci seen biir waaw amuñu ko ñoom waaw mais Sénégal comme ñoom ñoom am nañu jàmm xam nañ niñ koy doxee loolu dafay mat ñoom ñu jàngale nan lañ koy defee benn bis rek euh, ambassadeur bii nga xam ne mooy nekk Arabie Saoudite ñëw na siyaar si Touba ci Cheikh Sidil Makhtar yàlla na yàlla yeesal yéen ma ndéem ni ko yéen waa Sénégal ni ngeen fexee ba Tijaan nekk fi murit ne fi xaadir nekk fi laayeen nekk fi te ngëm yi ngeen gëm ñun gëmuñu ko ci sunu biir ñi ngeen gëmee seen i sëriñ waaye mosuñu leen a dégg ngeen xiiroo mbaa ngeen ŋaayoo mbaa ngeen xeex mbaa ngeen rayante te bu doon noonu ba léegi ñun rayante nanu gis nga ko màkka lu ko mos a tas aw la Euh, bi ci bi jógee Màkka ñëw ma Madinatul Munawwara gis nga ñaari xeet yooyu fa nekkoon loolu moo ko mos a tas rawatina nag ngëm-ngëmu tariixa pas-pas loolu nun dañ koo amee ba noppi nag euh, di ko doxal di ko dund loolee ambassadeur bi ni sëriñ bi loolu da ngeen da ngeen nuy dimbali ngeen ñëw ci suñu dëkkee installeel nu ko fa loolu nag Sénégal da koo am moo di fi ne nii boo ñëwee ci biir jàkk jàkkee sëriñ Babacar di nga fi fekk Tidiane di nga fi fekk Murit di nga fi fekk Xaadir di nga fi fekk Laayeen kenn ku ci nekk na tijaan ba gëmee sëriñ Babacar na tijaan ba di jullee ci sëriñ Babacar na tijaan ba toogee ci biir jàkk ji di fi jullee boo demee tubaat noonu nga koy fekkee loolu la imaam Yusufa Ngiraan wax léegi muy lu am solo loo xamee ni buñ ko bàyyee xel rek sunum nekk ak sunu dundin dafay daal di yomb parce que yàlla def noo boole woon ni na ngeen jàpp ci buumu yàlla gi te bu leen xajaliko loolu nag tabaarakallaahu lu am solo la lu mat di bàyyi xel moo gàmm gi daal ren ñoo ngi jël thème mu jàmm boobu bëgg koo waxtaane nit ñi gën cee bàyyi xel euh, di bay werante di bàyyi xulu di bàyyi waxtaane loo xam ni gëmuloo ko euh, di defaraat sa jikko ba nga xam ne foo dem man faane te loolu moo di jullit waaw foo dem rek mën a bokk xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na gan ñoo xamee ni duñu wan woon ay jullit ci biir jàkkaam yonent bi def leen a leen a bi ñu demee ba seen waxtu julli jot yonent bi dañu mën ngeen a jullee fii te ay catholique lañu woon ci biir jàkkaam tey war nañ koy gën a bàyyi xel ba euh, comme tarixa yi ñu jàpp alhamdulilahi rabil alamin bi nga xamee ni euh, ñoom ñooy ñooy yanoondoo seenu say ñoo koy wàcceendoo xëy na dinañ wane ngëm sax lu bare bare bare bari waaye dinañ ti dinañ bayyi xel ni euh, li li bokk te li ñu bokk dafa yaatu tey boo dee murit xam nga ni menn maam mi menn la mooy ñoom sax ñoo ci tane ñoo ci gën ñoo ci gën a jegente mooy waa kër euh, Seydi Hadji Malick ak waa kër Serigne Touba Khadim Rasoul ndax maarama leen biir ñoom moo leen meññ ñoom ñaar ñëpp kon nag loolu jàmm ji nga xam ne daal moom la ñu war a gën a di doxalante ci sunu biir mooy teemu gàmm gi te it la la la la nga xam ne loolu la mag ñi daan sàkku mooy fexe bay jàmmalante ci seen biir fexe ba ko nekkal nag jàmm ji ngay wax ci moom mu bañ a doon tricher mu bañ a doon loo xam ne da nga koy wax ni rek bàyyi waaw danga koy wax te jëfe ko mooy di ko doxal di fexe ba dara lu yàq sa diggante ak doomu aadama ji wala luy dégg ci yow dara lu ñaaw wala lépp loo xamee ni du jàmm jëm si ci nit nga mën ne am fexe ba ba fànq loola. loolu moo taxoon ku mel ni Seex Seydi Hadj Malick ñëw ti waawan fii fekk fii lu dul jàmm fekk fi buur yi nekk fi kenn di xeex ak ko xuloo ko ndax xam ngeen ni ba ci dëkk bii nu nekk ay buur dañ fee nekkoon jamono yi nga xam ne dëkk bi pays la woon. Euh, ay kàngami buur nekk fi reyante rek lañ mos a xam ak def lu ñaaw ak def lu bon maam Seydi Hadji Malick ñëw dindi loolu raxas ko ba mu set mu teg fi lii nga xam ne moom nu indil jàmm tey kon loolu war nañ ci gën a góorgóorlu di ci bàyyi xel kenn ku ci nekk boo fekkee ni ni ko Alaaji Abdou daan waxe ni nañu jël tàpp na yàlla yàlla tàppe xol yi da ngay fexe ba raxas sa xol ba bala ñu laa tàppeek nit boo demee ci moom doo du ngeen mën a du mën a amalante benn coow waaw bu ko defee ñaan gaa ngi noonu xam nga ñaan dafa baax ci ab jullit ndigal la ci euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan ngay wax amin boo mënul wax boo mënul wax ca ñaan nga ngay wax amin parce que lii itam dafa bokk ci li nga xam ne mag ñi dañ ko fee bàyyi bokk na ci lii tax ñun la lu jàmm du am senegal waaw yii moo tax mooy ñaan yi ak bennoo gi ak nag lal mbalaani wasifa yi ak naasiril xaq bil xaq ji di dal li fi nekkoon ci luy xeexalante parce que mag ñi dañ daan branché ci sa biir xol loo xamee ne doo tala mer doo tala xuloo doo tala fooy doo tala déconné doo tala def lenn luy yàq sa xol loolu nag ginnaaw bàyyi woon nañ ko fi ñu di ko dundal ba tey te xam nga ni kii nga xam ne dafa yor kursam toog ci mbalaanum wasifaam du tala xeex du tala xuloo du tala wax lu ñaaw loolu nag moo mooy mooy indi jàmm waaw lii indi jàmm loolu la mag ñi teel a comprendre teel koo xam ni buñ ko installé ci xoli nit ñi installé ko ci seen i dënn jàmm rek kay am te xam nga ni keroog bi Seydi Hadji Malick di ñëw ci dëkk bi le lim fi fekk dem na ba histoire boobu ñu lay nit ne la dem na ba julli fi ay nit jóg taxaw di di di ŋàññi julleem googee bay wax ni képp ku taxaw ku Alaaji jiite woon bay boobu nga tuub wala nga baamuwaat amoo julli ndax nangam ak nangam waaye gis nga nam ko rek réglé ci jàmm waaw mooy daal di fexe ba jokkalante ak ñooña muy baatub jàmm kon baatub jàmm jooju yal nañ ko yàlla saxal yal ko yàlla defal yal na yàlla boole xol yi muy benn ba kenn ku ci nekk li nga yéene li nga yéene ci sa bopp nga yéene ko sa moroom loolu nag lu am solo la nit la mu yéenee li mu yéene boppam mu yéene ko moromam sunu sang ba Seex Saaliw Mbàkke daana na ko wax daana wax ne euh, loo seet ba mu yey ci yow na nga ko yeeyale sa moroom ndax xam na ni nit du yéene boppam mu siba tënk baa ngi noonu waaw lépp loo yéene sa bopp rek nga yéene ko sa morom parce que xam na ni nit du yéene boppam musiba waaw bu ko defee boo ko defee rek jàmm day daal waaye nag bu fekkente ni li nga sa bopp yéene woo ko sa moroomum jullit yéene woo ko sa moroomum tariixa yéene comme ni ko euh, euh, oustaz euh, waxe léegi nga xam ni ngiraan waxtaan wi gàtt na waaye am noonu la amee njariñ mooy fexe ba yéene ji yéene ji ci biir xol lay nekk nag bokkul ak jëf ji parce que nit mën nay jëf dara te gëmu ko waaye yéene ji nga xam ni yow bu doon ñaara comme ni ko saxaaba yi daan defe boobu ñu lay nettali naa la kër bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, bi ñu indilee ndawal googu di ko seet di ko joxe ci biir bool bi saxaaba yi di ko joxante di ko joxante ba mu agsiwaat ci ki euh, ki mu jëkkee woon loolu mooy yéene ju baax mooy ki nga dendal tamit sam mbokk nga fexe ba bu dee bu dee benn bu baax nga man koo bàyyee ak moom noonu la ñuy yéenee waaye nag euh, bu dee benn bu baax nga féetewoo ko bàyyi waa ji mu tumuranke loolooy tax mag ñi doon reyante pour loolu bañ a am waaw mag ñi bu fekkee ni li li leen yàlla fayee li yàlla defal Sénégal dañ ko féetale woon ci seen njaboot rek sax ñeneen ñi duñu am waaye tey boo xoolee bëgg jàmm rek tax na mag ñi bëgguñu woon kenn ku leen jege di dellu ginnaaw boo xoolee ni ñu ko formé kenn ku ne si euh, Sidi Hadj Malick nga xam ne li topp ci ginnaawam ci ay mag yëpp yëpp yëpp da leen a chargé ba ñu fees kenn ku ci nekk mu yéene la li mu yéene boppam boo ki xoolee firnde li xool mu xaddam yi kenn ku ci nekk tey boo boo taxawee ci sa yi taalibe say taalibe bu ñu yëkkatee day dafay mel ni dañuy dañuy dañuy am doole joojee su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax loolu waraloon mag ñi doon seexal ak mu xaddamal parce que dañu yéene li ñu yéene seen bopp loolu lañ yéene seen moroom jullit waaw mais léegi nag nit ñi ñu ci baree bari bu ñu dee boo bu ñu amee benn benn benn daraja ji duñ bëgg yow nga am ko waaw duñ bëgg yow bu fekkee ni sëriñ lañu dañuy bëgg nga doon nga sax ci taalibe ba dee ci doon li wax xaddamal bu fekkee ni directeur lañ duñ bëgg nga doon nga am genn ndombal tànk waaye mag ñi loolu lañ teel a dindi waaw mooy boo nekkee ci mbalaanu wasifa mi daal nekk ci ñoom sax ci yëf yi ñu defar sa jikko ba mu baax bis day ñëw rek ñu ne xaddamal nañ la jël nag àddina yëpp jàll la ko ñaanal la taalibe yi wut si la waaw loolu ku borom xol bu lëndëm du ko man borom xal bu dëgër du ko man parce que loolu loolu loolu la la la nit ku la nit ku baax di def mooy li nga yéene sa bopp nga nga yéene ko jàmm bi nga dendal wala ki nga dendal tamit sa taalibe ndax bu yëkkati ko yow itam loolu loolu sa sa intérêt la bu ko defee ñu wax amin da ñëpp tàllal ñoo ngi tëj ñaan gi amin yaa rabbal alamin yàlla defal lu sutura maa ngi fàttali ne nag mbokk yi yéen a ngi nekk en direct fii ci euh, télévision Futurs Médias ñu nekk fii ci zawiya sëñ Babacar sëñ Babacar a ngi nii ma jàkkaar lool euh, tabarakallah amin yaa rabbal alamin yàlla na yàlla dolli sutura yi dolli xéewal dolli ndam ci àdduna bi yëpp defal nu koy tawféex xam naa imaam la ñuy xaar mu agsi bu agsee rek ñun dañuy nodd nag nodd gu mujj gi daal di euh, julli daal di déglu bayaan bi maanaam déglu xutba bi waaw ah, suñu dégloo xutba parce que euh, xutba bi ñoom ci arab imam bi en général bu ñëwee buñ bayaanee moom lañ tekki noonu mooy bayaan bi jiitu ngeen dégg léegi oustaz def ko euh, su ko defee buñ dellu see nag ci li nga xam ni mooy xutba bi ci arab ñu jël xutba boo xamee ni mag ñi ñoo ko bindoon bàyyi ko fi maam Seydi Hadj Malick ay ay xutba yu bëri la bind bàyyi fi waaw kay waaw defe naa imaam a ngi noonu di agsi waaw noddu gaa ngi commencé xam naa dañuy bàyyi rek ak noddu gi su ko defee euh, imaam yéeg ñu xaar bu noddee ba noppi nag daldi daal di xutba ñu daal di xutba daal di julli nag xutba bi nag bu tàmbalee xam nga amul wax dañuy daal di teewlu déglu su ko defee rek ñu teewlu ko incha allah. allahu akbar allahu akbar ashhadu an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 好。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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa ilaha illa

محمد رسول الله الرحيم وهو الذي يتولى الصالحين والصلاة وسلامه على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين آله وأصحابه وخلفائه العالين المهتدين أما بعد فيا عباد الله ما حملكم على هذه القفلة وترك أوامر الله وراء سهوركم نسيا منسيا هل وعدكم الله في آسه الدار بالخلود أو خركم بالله المهال والخرور وتظنون أنكم في آسه الدار الفانية مخلدون لا إلى دار الباقية راهلون هيهات هيهات لما تصنون عباد الله بادروا بالأعمال الصالحات قبل الفوات وأدره بلا أسنات سيئات إن الحسنات يسهبن سيئات ألم يان للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فهو الذي نفس سيدنا محمد بيده إنكم ستخيفون أمام رب لا تخفى عليه قافية وعلى النقير والخدمير والفتيل محاسبون والله سبحانه وتعالى لا يسلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يسلمون الحديث يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت وحبيب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزئ به عباد الله إن في هذا لبلاغا وشكرها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو سهيد جعلنا الله وإياكم من عبادي من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين إسعاده إلى الله يجيبون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم وأولئك هم أولي الألباب يغفر الله لنا ولكم الحمد لمستيقظ وصلاته وسلامه على أفضل خلقه وعلى آله وأصحابه وخلفائه المتخلقين بأخلاقه أيها الناس اتقوا الله كما أمر وانتهوا عن كل ما نهى عنه وسجره وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوه فيما تاتون وما تسرون قال تعالى اعملوا بما شئتم إنه بما تعملون بشير أيها الإخوة أيها الإخوة في الله سووا صفوفكم ووحدوا كلمتكم وألفوا بين قلوبكم mutaaqiina wa mutahaabiina fillaahi lillah wa mutamassikiina bi kitaabihil mubiin wa sunnati nabiyyihil lamiin takuunu inshaa Allahu gadan minal faa'iziin اللهم سوي صفوف المسلمين ووحد كلمة المسلمين وجعل ديارهم ديار عدل والإسلام وسبل اللهم شهاهب رحمة والمغفرة ورضوان يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمة إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين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 علم يجدك في منفاويه ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر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 علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وترك الذي أمخض سهرك ورفعنا لك سكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر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 asalaamualeykum. asalaamualeykum. astafirullah al azim laa ilaha illa huwa al hayyu al qayyum wa atubu laa ilaha illa huwa al hayyu al qayyum wa atubu subhanallahi subhanallahi salaatul fatiha ñu def ko addi ci yonent bi yéena ko sëriñ Babacar si addiyam ak kilifaam yi tedd yi ak yëpp suñu noppee ñu def fatih ñetti salaatal fatih def ko addi sëriñ Babacar si ñaanal njabootam gi yal na yàlla guddal seen fan may leen wér yal na yàlla yiir leen balaanum sutura dugal ñu ca biir yal nañ yàlla defal fekke ak fekkele te ko ñu yéene ci suñu xalifa bi ñaanal ko yal na yàlla guddal fanam may ko wér yal na yàlla kartanal ko ba yan bi du diis ci kawam suñu noppee ñu def fatih fàlla xeeg naa si salaatal fatih def kaa dij sëriñ Babacar si ñaanal suñu kilifa yi ci tukki tukki farata yal na yàlla musal leen defal leen seen i bëgg-bëgg ñu dugal ci way ziar yeeg way liggéey yeek way aajo yal na yàlla faj seen aajo faj suñu aajo yàlla bu ñu yàq yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule suñu noppee ñu def fatih téeméeri yàlla tiif ak ñaar fukk ak juróom-ñeent jëmale ko ci liggéey bi yal na ko yàlla mottali mu ñu gën ale tañ fekk ko tam ànd ak ñaan way faatu yi ñu yéene ci alaaji Ismaïla Donde ca Fatick ak suñu waay daw lii yépp yal na yàlla yeesal seen yërmande yal na yàlla jéggal leen looloo ne nu jàng fatiha jàng salaatul fatiha jàng ñetti ayatul kursi jàng qul huwallahu ahad ñetti yoon jàng fàllaxi jàng naasi tëji ñetti salaatul fatiha def ko hadiya yonente bi sallallahu alayhi wa ak i sëriñ ak sunuy way jur ñaan yàlla lii ñu commencé yàlla nañu ko yeggaleeg jàmm ci yàlla si ngërëmal yàlla diik ñu ñaan yàlla yàlla yàlla musal ñépp kilifa yi ko jiiti ak njaboot yi ñu ko àndal ak ñi fi teew ak ñi ñëw ci yegg seeguñu yàlla yàlla musal ñépp ba kenn ku ne dellu fa nga jóge woon ànd ak jàmm la indee tam yàlla musal ko yàlla bu benn wasa eh, xoosu sax waxu mag bi laneen di si am si barki sëriñ Babacar si nu jàng ka nañuy jàng ñaan yi wax kati jàng ñu ko amul benn njëriñ kurus gi dawti yi waxuloo dara amul benn njëriñ nan leen wéetal yàlla nan leen ragal yàlla nan leen di jaamu yàlla nan leen xam ne yàlla doon na yàlla roy sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li yonent bi santaane na ne góorgóorlu ci di ko def li mu tere jëli ko ci boroomam nu koy wattandiku ki jëm yàlla doo nga tax nag yonent bi sax mooy sunu yonent moom la ñuy roy waaye yàlla la ñu nu jaamuloo nañ leen di wéetal yàlla nu jàng ñaan ko وهدينا waxtaan wu am solo woowu euh, li nu bëggoon rek mooy teewlu euh, àndandoog yéen bu noppee ñu joxaat ko kaddu gi ay kaddu yoo xamee ni xam ngeen ni télévision Futurs Médias en direct lay def fi mu ne nii euh, jumaa ju mu dem rek daal di fay taxaw fas yéene jokkook imaam yaag ña fa nekk ci jumaa ja na muy doxee ak xutba mu def xutba yu am solo def bayaan bo am solo itam ñu julleendoo ba noppi muy joxe ñaan xam naa suñu noppee ñaan gi rek dañuy daal di àndaat ak moom jox sëñ Assane mu nuy ubbi ubbil imam bu ko defee rek yeneen kilifa yi fi nekk yëpp tabarakallahu ñu ndax fii barab bi mooy zawiya Serigne Babacar Sy euh, fii nekk itam fu am solo la ci tarixa bi moo waral ñu fekk fi imaam xam naa bu ñaanee rek ñu daal di duggaat ci li nga xam ne rek mooy euh, waxtaan wi incha allah euh, su ko defee nu ngi nuyoo ziar ñëpp ñaanal leen yàlla jàmm waaw kay Imam Diop tabaarkalla kon mbokk yi nu ngi àndandoo ak yéen ak télévision Futurs Médias euh, ni ngeen ko xamee rek ci seen direct bi euh, tabarakallahu ànd koog yéen ak euh, njaboot gi nga xam ne ñooy njaboot Cheikh Seydi xaaj Malick yëpp fu ñu ne ci lislaam rek ñu àndandoo ak yéen fas yéene jottali kàddu yi nga xam ni saa bu ñu defee jumaa ba noppi rek dañuy toog kenn ku ne xam ni barab bii lii moo ko tax a jóg barab bii lii moo fi xew barab bii nii lañ ko sose loolu nag di lu am solo loo xam ne njabootu lislaam gépp ñoom la ko Fitri Média di defal rawatina kër Seex Sidi Hadj Malick euh, gii nga xam ne euh, xam ngeen ni borom kër gi euh, fii mooy kër maamam ndax Tiwaawan gii fi lay bokkam dëkk fi la yaayam dëkk fi la léppam dëkk dégg ngeen ko saa su toogeeg sëriñ bi loolu dañ koy waxtaanee. ñu ñaanal ko yàlla yitam ñaanal alaaj Njaga Nduur ma nga xam ni moom itam wax naa leen keroog ni leen émission juma lépp ci loxoom boobu la la jaar fi la jóge ngi toog. Euh, ñu jox euh, euh, sëñ asan mu nuyoo présenté lu ñu yenn ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk su ko defee nag ñu dugg ak imaam ci waxtaan bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bokk yi jullit yi bokk yi ñuy seetaan ci TFM ci adduna bi ci biir Tiwaawan ak li ko wër ñoo ngi fii ci jumaay Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ak sunu imaamul akbar sunu baay sunu Serigne di alxaaji Moussa Diop fa tabarakallahu sunu wayjur yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkoon teg ko fa la ci jiitu Serigne Seyd Mouhamadul Mansour borom daara ji mu nekkoon kenn ci moom dan ko jiite ci kanamu jullit yëpp ba mu fi jógee Serigne si Ahmad Tidiane si almaktum lool a tegaat ko fi ba mu fa jógee Serigne Abdoulaye Sall Amin mi nga xam ni moom la yàlla dogaloon daaw wala daaw jéeg ci gàmm yu mujj yi fa tabarakallahu lépp ñu teg ko ci loxoom. kon nag tey jii bu ñu demee ba ñu ñëpp jóge fi kii fi nekk di baaba Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Pape Malick si mi nga xam ni moom la denk xadara bi dénk jumaay Serigne Babacar Sy mu tegaat lépp ci loxo alxaaji Moussa Diop mu ànd kook ay mbokkam ànd kook ay naayibam yu baax yi nga xam ni fa tabaarakalaaw sunu baay oustaz Omar Ngiraan mu ngi nii toog bokk ci imaam yi imaam alxaaji Moustapha Sarr mu ngi nii toog fa tabaarakallaahu imaam alxaaji Moussa Ñang mi ngi nii toog fa tabaarakallaahu bokk ci imaam yi imaam alxaaji musa Ndion mi ngi nii toog fa tabaarakallaahu bokk ci imaam yi imaam alxaaji Mansour Diouf bu sunu baay imaam Lamine Diouf fa tabaarakallaahu mu ngi nii toog bokk ci imaam yi imaam Seck fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp mbokk ji nga xam ni sëriñ bi moo leen dekk fii waaye jiital nag sunu baay bii di alxaaji Moussa Diop ku nekk dégg na xutba gi ku nekk dégg na ñaan yi kon fa tabaarakallaahu dañuy jox rek imaam lu mu ciy doxal ci ay kaddu mu jox joxe na ndigal ne nañu jox imaam yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam kon nag jox na waaw fa tabarakallahu nee na imaam yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam ñoom la jox baatam ñu dénkaane ay dénkaane yu gàtt fa tabarakallahu imaam alhaji Moussa Niang di kenn ci Serigne Abdoul Aziz mu jàngal ko yar ko imaam alhaji Moustapha Sarr Cheikh Seyd Mahamadul Mansour jàngal ko yar ko ñoom ñu la Serigne bi seq jox leen jumaa ji ñu di ko doxal ci ay ci xam-xam di ko doxal ci daara ji di ko doxal ci gindi nit ñi fa tabarakallahu kon dañuy jox rek imam alxaaji Moussa Niang fa tabarakallahu ci alxaaji Ndiaga Seck ni nga ko présenté woon loolu rek la fa tabarakallahu waaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala ashraf almursalin sayidina muhammadin nabiy alamin wa ala alihi wa ashaabihi ghuril mayamin wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ Xasan ni ko waxee fa tabarakallahu ci sunu xaq wayjur yi toog di sunu sëriñ di sunu cheikhu taalim di sunu cheikhu tarbiya di sunu cheikhu tarqiya mooy al imam Moussa Diop bi ñëpp xam fa tabarakallahu ci xam-xam. ak jàng ak jàngale di kenn gu rëy ci xadara kër Seydil Hadji malik Sy waaye fa tabarakallahu di ki nga xam ni dafa doy mag ñi danaay wax ni euh, ahlu tarbiya dañuy wax ni wa afdalu tarbiyati luzumul istiqamati moom tarbiyaam bi ci ëpp doole mooy comportement nekk ak moom rek xam-xam la ndax amul lenn lu muy jëfandiku ci benn xarakaat wala sakanaat lu dul loo xam ne qaayida la ci qaayidal quranul karim wa sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dundal ko barkeel ko teg ko ci sunu kanam di ziyaare itam aima yu topp ci gannaawam yëpp ni nga ko waxee xaj Moustapha Sarr mi ngi nii sunu wayjur xaj Omar daan moom it di borom xam-xam mi nga xam ne karrasatu la xayaatihi li taalimi naasi jeexal na àdduna bépp ci jàng ak jàngale fa tabaarakallahu imam musa Moussa Ndione mi moom itam fa tabarakallahu di borom xam-xam bokk ci ñi yor ci daara yi nga xam ni mooy daara yi cee ci borom daara jëm mooy Serigne Mouhamadou Mansour si comme ni ko musa Moustapha Sarr yore ay imam Seck di sunu wayjur di sunu wéttal ci jàkka ji imam Mansour Diouf di koo xam ne doom la ci imam Lamine juuf bi nekkoon fii ci jàkka ji fa tabarakallahu ni ko waxee xaaji Xasan nuyoo ziar waaye ñun ñëpp dañuy dellu si ci thème bi nga xam ne xalifa bi moom la joxe te mooy thème central bi te mooy jàmm jàmm ci la àdduna bépp xaj lislaam njëkk ba jàmm la mujj gi jàmm la waaye jàmm bu ko yàlla wàccee ci kaw suuf bu amee nit ñee ko fi dàq ñoo ko dundal fa tabarakallahu jàmm am na jóge ci alquranul karim jóge ci sunna sayyidina muhammad alayhi waaye bu ko nit ñi dundalul jàmm du am moo tax yàlla miraaran wa takraaran wax nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko na am comportement yii ndax jàmm mën a am ba ci njëkk mu ni ko aoudu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim law kunta fazzan galiza al qalbi lan faddu min hawlik maa ngi yor mission teg ko ci sa loxo yow yonent bi alayhi comportement bi nga xam ni moom nga war a comporté woo ngir mën ko véhiculer ba nit ñi jëriñoo ko mooy bul ni gàng gàngaaral bul diis bul yëg sa bopp bul ñàkk fale keneen boo ko defee doo dem te kenn du la topp yonent bi alayhi salaam feelu ko ni kon li muy njëkk a firee ay boobu mooy al al muminu hayyinun layyinun jullit liñ koy xàmmee mooy na nooy te du ñàkk fayda na yomb te du doyadi fa tabarakallahu moo dal suñu ay ima yi koo ci dem muy sa moroom wàcce boppam waaye ñàkk fayda lalu ko de doyadi lalu ko yonente bi alayhi salaam yàlla tegal ko ci ni ko ba mu nekk law kunta faddan xadisal xalbi min xaw lan faddu min xawlik ñett la ko ci tegal an anhum mbooloo mii lay bëgg a topp nga bëgg leen a jàngal jariñ leen nang leen tane ci jikko kon koo tanewul doo ko mën a jëriñ suñu sëriñ si tedd si di njaboot Seydi Hadji Malick Sy yàlla na yàlla yokk seen leer ñi dugg ci biir suuf ñi fi des yàlla dundaleen te barke leen ak kilifa diine yi nga xam ne ñoo ŋànk Sénégal koo fa dem moo la gën jikko ndax bu dee rafet mu jox la ko boo ñaawlee mu dencal la ko boo juumee mu mottali ko kooku lañ dund ak suñu kilifa yi faafu anhum wastaxfir lahum nit boo nekkee moom bu juumee na nga ko yedd jubbanti ko ñaan yàlla jéggal ko wa shaawirhum fil amr bul le sa bopp nit ndax bu nit doon ëpp nit yàlla di wax yonente bi alayhi salaam ni ko na nga diisoo concertation lépp ki doon wax léegi ci xutba wax na ko Seydi Hadj Mal wax na ko amul lu mën a jëriñ concert euh, jàmm lu dul mbooloo am ak waxtaan ak dëppoo kon Xasan yooyu yooyu mooy yi nga xam ne ñetti baat yi tegu ci ko ay boobu euh, Assane ñu ngi lay gërëm di la sant ngay sunu xarit Njaga Njaga Seck di sunu xarit fa tabarakallahu yaan yàlla lii yàlla na sax ñu jox kon imam Moustapha Sarr ñaari baat mooy soobu kii ci fa tabarakallahu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Hadj Moustapha wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain mbokki jullit yi ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ziyaara ci guddi gu tedd gi muy guddi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa liñ ciy teg du bare xam naa liñ ciy teg du bare ndax Baye Moussa wax na thème bi ñun liñ ciy doole rek mooy sunu borom tabaraka wa taala mu waxoon ak sidina Aboubacar ci qisatu ifk wala yafa wala so ala tuhibu an yaxfir lahu lakum mu ne di leen jéllale di jéggale su fekkee bëgg ngeen yàlla jéggal leen jéllale seen kon jéggale ak jëllale mooy indi jàmm te bu ca jàmm lañu soxla ndax lislaam baat bi jàmm la tekk kon ku ci dugg rek ku mu da war a nekk koo xam ne nitu jàmm nga kon fa tabaarakallaahu euh, jàmm mooy li nga xam ne ci la lépp xej waaye waxtu wu jàmm manqué rek safaan am te bu safaan amee fitna am te fitna baaxut mën na jur lu nekk kon nii ko xalifa bi joxe ñun ñëpp nañ sàmmanteeg loolu ndax borom xadara bi loolu la dundee ba te ci loolu la samp xadara bi ba dellu ci loolu la ñu jàngalee yonent bi siiraam te siire ba yëpp mooy jikko ju rafet te jikko ju rafet jàmm nga ci biir kon su ko defee noonu mu ñu ko jàngalee nan ci sax nekk ci ndax jàmm am te ñi fi jëm si ñu ñaan leen ku ñëw itam nga ñëwee ci anam boobu su ko defee lépp jak lépp rafet ndax borom xadara bii kat lii mu ñu indi rëy na lool lii mu ñu indi rëy rëy na lool ah, du ñu sore ndax fi ñu tollu jotaay bi yàgg na te am na loo xam ne du fi xej su ko defee kon dañ doon def tëyit Baye Moussa rek ci lii mu wax ci wàllu jàmm ah, su ko defee kon ñu tënk ko noonu rek ndax ba te bàyyi xel loolu ndax xisa boobu moo wax léegi ba muy am ci ayatul ifki ca diggante na Aysa ak tuuma dañ ko tuumaaloon ak ña àndoon ak ña ko tuumaal ak ñi nga xam ne ànduñu woon ak moom ci la yàlla waxee sidna kër ndax am na koo xam ne moom la yaroon ci biir këram ah, mu xam nga xol day sot ba tuuma jee ñëwee te kooko xaw caa xuut mu wane ne kon dafay dagg lépp lu mu ko daan defal te kooko mënul boppam yàlla wan ko ne ko nag bu fekkee bëgg nga ma di ma ma ma jéggal la dangay ngay di jéggale mu ne ah kañ bëgg naa ma jéggal di jéllale loolu moo tax moom itam mu wëññi ko waat nag jéggal kooko kon loolu ñu bàyyi ko xel ah, tabaarakallaahu ñu xam ne jàmm il faut nag nit matul il faut muy am ay rëcc rëcc rëcc rëcc yi muy am nag kam ko am ci digganteek moom moom kooka na ko jéggal te jëllale ndax loolu mooy tax ndax suñu kilifa yi kat ci loolu lañ dëkk ak ñun jéggale ak bu loolu amuloon kon ñun ñëpp duñ fi mën a nekk kon tabaarakallaahu foofu la ñuy gàttal kàddu bi salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jazakumullahu ana xayra imam alhaaji Moustapha Sarr kon ñoo ngi sant bu baax di delluwaat rek di gërëm sunu euh, baay bi di imaamul akbar di alhaaji Moussa Diop ci modeste bi nga xam ni fa tabarakalaw def na ko ne sama kaddu maa ngi ko jox imam yi nga xam ne ñoo ñoo topp sama gannaaw xam naa ne bu yaatu yaatu amoon a ima yëpp dina

قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد دفى طيف الكرى هدى قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسباني قد دفى طيف الكرى هدى قلبي وجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى gis ngeen ma ngi noonu euh, nu àndandoo koog yéen fii ci Tiwaawan dégg ngeen sëñ Assane ma ngi noonu doon wax léegi li nga xam ni mooy euh, mag ñi li ñu fi bàyyi woon te di ko sàmm Imam Moussa jërëjëf ay mag lañu wax dëgg yàlla saa bu ñu ñëwee li leen mag ñi bàyyi woon rek duñ ko sax duñ ko sax jéggi ñemewuñ ko ca lañ ca loola lañ taxaw xutba bi am na solo ni nga ko taxawee am na solo su ko defee sëñ Assane am na fu mu toll woon doon tëj su ko defee ñu delloo nga tëj rek ñu jox imam mu ñaan Euh, ñu daal di tàggoo nag ba aljuma ak jàmm ci waaye di fàttali yéen a ngi ànd ak seen direct fii ci euh, Tiwaawan euh, ci zawiya Serigne Babacar Sy Serigne Babacar nekk nii ngeen tallal loxo yi kenn ku ne nag loo am ci soxla Futurs Médias may na la occasion pour nga jàkkaarloog Serigne Babacar ñaan ko fi. waaw ndax fii moom kenn ku ne xam ne zawiyaama te it fii fu am solo la ci tarixa bi gis nañ léegi xalifa Serigne Pam Malick ñëw toog àndandoo noonu ñun julli. Euh, imam Moussa jiite nu def ba bu am solo bi su ko defee damay jox sëñ Assane mu yeggale kàddu yi mu doon def ñu jox imam mu ñaan ñu daal di tëj nag tàggoo ba àjjuma ak jàmm incha allah. waaw jërëjëf Alhaji Ndiaga xam naa daanaka ñaan rek moo ci des ndax euh, li nga wax sunu imam bu baax bi toog jotaay baa ngi bëgg a yàgg waaw. waaw waaw rajo xam-xam baa ngi wesaaroo wallahi wallahi imam dafa wax ne ñoo ngi sant rajo yëpp fa tabarakallahu waaye jiital ci rajo Futurs Médias euh, télévision bi fa tabarakallahu imam daal nga xam ni lii daal mooy daara ji nii daal lañuy la ñuy la ñuy jànkonteel ci daara ji bu ngeen ñëwee toog yéen ñi nga xam ne nag yéen ñu daan yebal ci daara ji ñuy dem di dikk ñu wax leen ne leen ni nii la li alxaaj Ndiaga wax Serigne Cheikh Tidiane si wax na ko barki démb ne weer wi weeru promotion la weer la boo xam ni la fa def na mu toll noonu lay toll weer wu nekk loo fa def ci yiw na mu toll noonu lay toll nu mu ko waxee sax bi izami zamani wal xamal mal makaani tuuxsamu taatu ma xisiyaan kon nag fii ñu toll fa tabaarakallaahu imaam dañ lay jox rek nga ñaanal adduna bi ñaanal réew mi ñaanal njaboot gi jàmm ji nga xam ne daal moom la xalifa bi jàngale wax ni ren nañ ko joyal muy te mu gàmm gi maan li ajli salaam aw maan min ajli salaam ñun ñëpp nañu daw wuti yiw yiw woowu moom la ñuy rogaat si fii ci xadara maam Cheikhul Xaaji Malick waaye jàkkaarloog borom rawdu bu tedd bi borom taraay bu tedd bi di Cheikhul Xalifa Aboubacarin si radiyallahu taala anhu tey nga nekkal ko fi nekkal fi mag ñi ñoom ñu teg la fi kon ñaan geek yëpp dañ koy teg ci sa loxo fa tabaaraka la nga ñaanal réew mi ñaanal adduna bi ñaanal yow it yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla dolli sa wér ak mboolem ñi ngi ko bokkal fa tabaaraka la asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaw kay yi bala ñuy tàllal imam di ñaan ñu tëj rek jox ko mu ta mu daal di ndax boo xasee ñaan dootoo tijjiwaat dara da ngay rek dem su ko defee ñoo ngi sant yàlla di ñaan yàlla itam télévision bii nga xam ni at mu ne ren def na fi ñaari juma euh, euh, tabaarakallaa xam ngeen ni euh, juma yi maam Seydi Aj Malick fa lañ nekkoon ajuma ji passé def ko direct ñëwaat fi def ko direct. loolu nag jar na ñaanal kilifa yi nga xam ne ñooy saytu ba loolu ndax gàmm gi dañ ko teel a commencé ni ñu teel a commencé màggal gi dañ loolu la ñu soxla dañ ni ñoom nañu góorgóorlu ba nga xam ne diine ji. saa bu ñu xewle rek ñu teel leen a commencé rawatina Tivaouane bi bordu bi commencé rek ci lañ ñëw àndandoo ko yéen bis bu ne muy bordu ajjuma yi ñu def ko direct bu ñu nëppee plateau yi ñu def ndax sëñ ji ngi waaja a commencé léegi ak oustaz Pape Anne ak Abdou Aziz ñoo ngi waaja a commencé léegi incha allah ba gàmmu gi jeex ci loolu la ñuy ne ñu ñaanal borom kër gi mu yuusu ndax euh, fonk na lool ndax dëkk bi day dëkkum maamam fii la maamam dëkk fii la juddoo fii la yaroo yaayam seen kër gaa ngi nii mu ni Tivaouane moom sama dëkk la Euh, alaaj Ndiaga Ndour mi nga xam ne moom mooy borom émission bi nu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko ndam euh, mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi itam euh, sunu xarit Ablaye Ndiaye Ngalgu duñ la fàtte alaaji Papa Ndiaye Ngalgu Euh, doomi alaaji ngal gu Ndiaye yooyu ñoo ngi leen di ñaanal Abdou Aziz bu Aale Ndiaye euh, law taxawaay bi rafet na lool ni mu ni muy liggéey ci gàmm gi nag sëñ Abdou nam ko digalan rek ca loola la ne yàlla yàlla dolli na am waa kër ala Adja Marème Taaxa ga nga xam ni fa la nekk ñoo ngi leen di ñaanal euh, muy Mami Samb ak Baba yàlla na yàlla dolli ndam ci ñoom ci barke Seydina waaye sunu wëlëre wa nag sunu xarit ba alaaj Bokar mu mënuñu laa fàtte ndax taxawaay bi tëji bu commencé fu mu mën ne ci àdduna bi bàyyi na liggéeyam yëpp moom El Hadj Bokar Ndiaye ñëw taxaw ci kanamu wetu njabootu Seex Seydi Haj Malick yal na yàlla dolli ko ndam ci barke Seydina Mohamed kon nag mbokk yi da ngeen di tàllal loxo yi imaam ñaanal nu nu tàggoon ak baal juma ak jàmm mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ñu ngi leen di ñaanal di leen dolli ndam suñu techniciens yi allah ay jàmbaar lañu parce que lu mu metti metti dugg juma di branché ak di filmer daa métti waaye xale yi allah fexe nañ ba buñ leen ko waxee ni leen nii ngeen koy defee bu imaam duggee def leen nii bu xutba commencé bu kenn wax na nii def nii xam naa li ni ci kii rek mooy julli gi te loolu moom xam naa ne imaam yi dina nu sàkkal bu nu noppee doog a julli <laughs> loolu yëpp tabaarkalaaw ñu sant yàlla la ndax jottali lislaam daa bokk ci ponk yi jottali lislaam xëy na nag danañ dem ba nga xam ni eh, caméra bi rek dina fa mën a ne waaw loolu ñaanal leen ko waaw kay ah allah waaye nag dañ koy at rek te boo demee Màkka di nga gis soldaar si taxaw du ñu julli dañuy garder waaw <laughs> noonu lan foofu lan nu koy ajal rek xam naa yu gàtt yooyu tabaarkalaaw yàlla yàlla dolli leen rendez-vous rek jàmm nu àndaat ko yéen ci yeneen juma incha allahu taala niñ ko defee ci guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam Cheikh Sidi Hadj Malick taxawaay ci taxawaay bu am solo lii rek la bëggoon ci dëkk bi ndax bi mu fii ñëw dëkk bi melul nii tey wuute nag keroog biñ ko naan ku toppan ci ginnaaw alaaj Malick booyam ba nga ko baamu. tey jii al Seydi Aj Malick dellu si taxaw fii dina xam ni la mu soxla woon yàlla defal na ko alhamdulilah rek lay dëkkee kon yàlla yàlla dolli ndam ñu tàllal imaam ñaanal nu tàggoo ba àdduma ak jàmm jërë ngeen jëf incha allah ak seen xarit Alhaji Ndiaga Seck ci fitir euh, émission yomal juma macha allah. kon ñun ñëpp nu jàng fatiha jàng salatul fatihi jàng ayatul kursi jàng xul huwallahu ahad jàng fàllaxeeg naa si tëjee ko salatul allahuma anta amartana bi duhaika wa waadtana bi ijabatika wa qad daawnaaka kama amartana fa ajibna kama waadtana ya sal jalali wal ikrami innaka la tuxlil mihaad allahuma qadarta lana min xayrin wa saratu fihi bi tawfiqika wa taysirika fa tammimhu li bi ahsani wujuhi kulliha wa aswabiha wa asfaha fa innaka ala ma tasaau qadirun wa bil ijabati jadirun nicma almawla wa nicma nasir wa ma qadarta lana min charrin wa tuassiruna fasrifu anna يا حي يا قيوم يا من قامت السماوات والأرض دون بأمره يا من يمسك سماها أن تقع على الأرض إلا بإذنه يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم يا من أشهر الجميل وستر الخبيع ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الشطر ويا أسم العفي ويا أسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمه ويا سامح كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفع ويا اسم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خيط رحبتي أسألك أن لا تسوها خلقتي ببلاه الدنيا ولا بأساب النار اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر أسهاسك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم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 min jamihil hayrati fil hayati wa bahdal mamati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin min khayalin qad sara qad sara qad sara wa sabani qad jafa tayful karam